Assalamualaikum mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di ziar bu baax tey nak ñu ngi fi ci journée porte ouverte bu Daara Majmahun Nurayni amalon fi ci université Cheikh Anta Diop ñoo ngi dalal suñu mbokki soxna yi soxna Mariama Diop ak soxna Hadiba kon sohna soxna Mariama ñu ngi lay laaj lan moo nekkoon sa yëg-yëg ci bis bi. Assalamualaikum wa rahmatulah soxna Fatou Ndiaye ñu ngi lay ziar bu baaxa baax di rafetlu seen teewaay ci bés bi ak taxaway bi nga xamantene taxaw ngeen ko ci bi. muy wa Celcom ñu ngi leen di ziaraat bu baax a baax di ziar mbokku taalibe yi nga xam ne ñoom ñëpp fi teew euh, muy cellules yi yëpp ak ñi nga xamante ne ñu bees lañ dañuy soog a ñëw ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax dëgg yàlla rafetlu nañ teewaay bi bu baax a baax bés bi nag moom xam naa mbégte rek lañ ci am ndax gis nañ ne góor yàlla yeeg soxna yi ñëpp ñëw nañu en masse te adhésion yi bëri nañu macha allah depuis ci suba ba léegi jot nañoo adhéré ay soxna yu bëree bëri Euh, sant nañ ci yàlla bu baax a baax ndax boo xoolee dëgg-dëgg bu bi nga xam ne moo taxoon ñuy def exposition bi euh, doon na loo xamante ne bokk na ci muy adhésion yi mbokk taalibe yi daal di découvrir daara ji bokk ci daara ji ñu àndandoo liggéeyal sëñ bi bokku na ci tamit li nga xamantene moy won ñi nga xamantene ne ñoo jotoon a té te xamaguñu won exactement réellement lan moy liggéeyu daara ji té yaakaarna objectif yoy nonu yépp bari na ci yo xamantene atteindre nañ ko ñu ci sante suñu borom bu baaxa baaxa baax wax dëgg yalla am mbékté contenté rek lañu am bu kawé kawé ma sha allah. jaajëf soxna Mariama kàddu yi amna solo té leer lool yalla na ci yalla defal déggu and ak top ci barke Cheikhul Khadim kon nak ñu jall ci ki nga xamantene ni moy soxna Khadija Ba nga xamne mom mo fi téwal cellule ESP ñu ngi koy dalal ak jàmm soxna Khadija bisimilah. salaamaaleykum jërëjëf soxna Fatou ci kàddu gi man la soxna Khadija Ba bu cellule ESP maa ngi sant bu baax ci ci dalal gi ñu ma dalal di la joxaat kàddu gi rek pour question boo am. waa jërëjëf soxna Khadija dañ na doon laaj nag tey lan moo nekkoon sa yëg-yëg si journée bi nga xamante ne waa Daara ma honoré amal nañ ko muy journée porte ouverte. ñu amal ko fi nga xamante ne mooy université Cheikh Anta Diop ñoo doon laaj soxna Khadija lan moo nekkoon sa yëgeeg ci bis bi. jërëjëf soxna Fatou waa yëgeeg bu ñu am nag ci journée bi da di journée bu am solo ndaxte euh, maanaam mooy journée bi ñuy xamalee daara ji ci université bi te ñi nga xam ne mooy ndaxte mën naa am ñu nekk ci université bi nekk ay murit maa ñu bañ koo nekk sax te am yëg-yëgu euh, bokk ci daara. mais journée yu mel ni bii day tax ñu xam ne daara euh, université bi kat am na daara bu tudd Majmahun Nurayni buy def liggéey bu am sol bu ko defee ci journée bi la ñuy euh, profité pour e-, expliquer euh, daara ji ni muy doxalee ak fu mu jóge historique gu ji expliquer ko kuy romb rek boo ci amee yëg-yëg ba tax nga bëgg a bi ñu mën laa adhérer ci saase après nag ñu mën laa contacter gën laa nga ñëw fekk ñu ci siège daara ji. que bu nekk cellule ESP wala cellule campus bu ko defee ñu mën laa gën a expliquer nga mën a tànn nag euh, commission ba nga bëgg nga tàbbi ci. kon nag euh, maanaam junne yi junne yu am am am solo la sax ndaxte ci la mbokk taalibe yi di di di am euh, di gën a gis liggéey bi baa bare mën cee gën a comprendre ni muy doxalee mën cee tàbbi ci ci ci ci ci daara ji. jërëjëf soxna Khadija kàddu yi leer na. soo ñëwee tamit am na solo lool. soxna Mariama ñu lay ñu ngi lay laaj ban appel ngay lancé pour ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ngi si biir daayira bi ak ñi nga anciens yi nga xamante ne ni nekk nañ si daayira bi génn ban appel ngay lancé pour ñu gën a mën a jàppaat daayira bi bu baax a baax. waaw soxna Fatou ñu ngi lay jaajëfal ci laaj boobu bu baax a baax xanaa di wax rek que appel bi ñuy lancé mbokku taalibe ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci daara ji te dem surtout ci ñoom lay gën a appuyé wu. ñu gën a jàppaat daara ji te fonk ndaje yi nga xamante ne daara ji ñu ngi koy woote képp koo xamante ne am nga disponibilité xëy na nag yombul ndax daanaka boo génnee fii nekk dans le milieu professionnel dafay xaw a jafe lool ngir nga am temps waaye ku ci yàlla wërsëgal nga am tuuti temps rek jàpp naa ne ñëw fii nii passé ko fi delluwaat sa kër doon na lu am solo ndax euh, daanaka doon na loo xamante ne saa bu ñëwee daje ci loo xam ne liggéeyu daara ji la ci sëñ bi la ñuy nekk ba keroog ñu fiy jóge ci sëñ bi la ñuy nekk te loolu tawféex rek la bu doonoon ay bés sax daanaka tawféex rek la waxatuma laa nag temps boobu noonu nga xam ne boo demee sa kër dootoo am benn temps pour nekk ci yu bëri kon nag fii nga xam ne foofu ngay fekk sëñ bi di ci nekk da ciy am solo lool ñu daal ci góor góorlu bu baax kantaa ñi nga xamante ne ñoo nekk ci daara ji instant bii nii maa ngi leen di woo pour ñu gën a góorlu ci présence bi góor góorlu ci njàngum xam-xam bi góorlu ci li nga xamante ne mooy commission yi ku ci nekk ci surtout nouvelles yi ñi nga xamante ne euh, xamaguñu réellement liy liggéeyu daara ji képp koo xam ne xamuloo ko nga daal di rapproché wu ci sa commission bi nga xam ne fa nga adhéré nga laajte renseigné wu ngir nga mën a impliqué wu ci liggéeyu daara ji ndax jàpp naa ne boo nekkee ci mbooloo kat dañ ne lu bëri da la fay war euh, yeneen ya nga xamante ne ñoo ciy gën a prioritaire mooy bés bu laajtee nga joxe te su wootee nga teew su fekkente ne nag moom jotuloo xam liggéey bi nu muy demee buñ laajtee dina jafe lool ngir nga joxe ndax alal dafa sax lool ci xol euh, bu fekkente ne teewaay bi la tamit bu fekkente ne yow dooy déglu information yi xamuloo ci réunion yi dara ci commission yi nga bokk dafay jafe lool ngir ñu ñu ne la teewal ci tel nga mën a teew ca na mu waree def ca la la ca war ndax boo ko xamul dëgg-dëgg doo ko mën a def kon ñu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax a baax naam jàngum euh, nasaraan bi moo ñu fi indi waaye teewul lii nga xamante ne moom mooy sëñ bi ñu koy fekk fii di ko dund fii ñu ciy góor góorlu bu baax a baax a baax incha allah maa ngi tuubaat bu baax a baax ci kàddu yi nga xam ne dañoo jaxasoo lépp loo xamante ne leer na ci rek ci euh, ndogalu yàlla la lépp loo xamante ne jubadi na ci rek nañu jàpp ne suñu motadi la jërëjëf. kon nag sax Khadija yow doon laaj. ban appel ngay lancé ci biir daara ji ñi nga xamante ne ñoo ngi fi ak anciens yi nga xamante ne nii génn nañ si biti ban appel ngay lancé pour ñoom gën a mën a jàmbaat daara ji ndax yaakaar naa jàpp ko am na solo lool. soxna Fatou appel bu may lancé ci ñu nga xamante ne ñu ngi ci daara ji wala ñu nga xamante ne ñu ngi woon ci daara ji Anta Diop bi mais yàlla dogal ñu am tawfeex bu pare la ñuy jàng ba génn nekk ñu ñu woowee ay membre professionnel ñooñu nag eh, damay njëkkee ci nga xam ne ñu ngi ci université bi ci ci moment bii ñuy waxee nga xam ne ñooñu yaakaar naa ñoo ñoo gën a eh, am tawfeex si fekkee événement yi fekkee activité eh, hebdomadaire ndaxte lu mel ni guddi aajuma yéeg lu mel ni ndaje xam-xam yeeg yooyu noonu boo nekkee ci ci université bi day gën a yomb ci yow ci nga koy fekkee mën naa am nag ngay xalaat waxi cours yeeg yooyu noonu mais yooyu yëpp ay ay ay ay. ay kiiwu seytaane la rek boo boo xalaatee ni maanaam lii ngay jàng mun nga cee sax bañ a jariñoo yaakaar naa di nga di nga ne kon euh, ma ma ma jéem koo boole li nga xam ne yaakaar naa ne bu ñu demee fee ëllëg dina ma mën a jàppale mooy mooy ëpp solo bu ko defee kon ku fi nekk dañ lay ñaax nga gën a euh, jàpp ci ci activité wu daara ji te macha allah activité yëpp amul leneen lu dul jaamu yàlla. mu di guddi aajuma mu di ndaje xam-xam yi nga xam dañ lay jàngal fu ngay gën a xamee sa diine ba mën koo euh, gën a xam sa sa borom ba mën koo jaam yaakaar naa foofu la ci woowee ci loo xam ne fayoo amoo ci benn euh, responsabilité ñëw ñëw toog jàng rek lañ la ci laaj mën naa ne loolu tax fex goo ne amuñu ko fépp yaakaar naa xam-xam biñ lay jox fii feneen foo bu bëggoon a amee di nga fay lu bëri kon buñ la woowee ne la kaay ñu jox la ko muy doon lu gratuit yaakaar naa Euh, ñu ah, bu ko ñenn ñi amoon dinañ daw bu fekkente ne nag dafa ne ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci daara ji ba jàng ba pare si euh, université bi ba génn nekk ay membre euh, professionnel ñooñu ñooñu tamit macha allah am nañ tawféex parce que nekk nañ ci daara ji xam nañ daara ji nu muy demee daara ji def na ci ñoom dara ndax daara ji moom mënoo fee jaar yaakaar naa ba génn sooy ñëw seeni activité te amul leen luñ yokk ci yow moo tax nag ñooñu am nañ loo xam nañ ni daara ji di kii bi xanaa kay dañ leen di ñaax ñu gën a am ñu ñu bañ a bàyyeeku ndax euh, peut-être boo boo boo soree mën ngaa ne ah damaa sori wala boo guddi ma day guddi wala ndaje xam-xam yi mais maanaam boo ci defee pas-pas bi ñu ci defoon bi nga nekkee ci université bi rek yaakaar naa di nga ko mën a matal ba tax na bu fekkente ne nekkoo dakaar yi am na cellule cellule bu nekk ci région yaa ngi fi région bu nekk mën naa ne ci am euh, cellule bëri nañ. ba nga xamante ni foo mënti nekk di nga mën a euh, liggéey ci ci liggéeyu daara ji. gannaaw bi nga xamante ne ni interrogé nañ suñu soxna yi nga xam soxna Mariama Diop mu fi teewal CELU campus ak soxna Khadija Ba mi nga xam moo fi teewal CELU ESP. kon ñu leen doon laaj rek lan la ñuy tàggatoo wee soxna Mariama bisimilah. doon gën a mbokk taalibe rek di ko tàmbalee ci suñu bopp ñu gën a góorgóorlu ci liggéeyu daara ji. Euh, gën cee farlu ci liggéey beeg joxe beeg njàngum xam-xam bi yëpp incha allah di ñaana suñu mbokk boobu di soxna Farimata Fall yàlla suñu borom yërëm ko te suuf sedd ci kawam incha allah jërë ngeen jëf. gannaaw ba nga xamante ne nii déglu nañ soxna Mariama Diop mi fi teewal cellule campus kon ñu jox soxna Khadija Ba mi nga xam ne moom moo fi teewal cellule ESP ñu laaj ko lan lay tàggatoo wi. jërëjëf soxna Fatou yaakaar naa lii li ëppoon solo ci li ñu bëggoon wax wax nañ ko. xana di gëna xañ eh, di gëna eh, a sama wa cellule ba nga xamante mu di cellule ESP ñu gëna am ñu gëna yok pasté fi ma sha allah té ñu xam juste ñu japp né bu liggéey bi doxé rek ñom ñoko doxal bu boba yaakaar na nañ ci def pasté bi di wax jërëjëf soxna fa bi gëna bi nga xamante né suñu mbokk soxna yi soxna Mariama Diop ak soxna Khadija Ba mi nga xam ñom ñoom ñoo fi ñaari cellule yi. soññee yi am na solo lool kon nag liggéey bàngoog ñu gën a jàppaat daara ji bu baax a te xam ne daara ji moom am na solo lool ndax depuis buñ ci nekkee ba léegi ak te rek nga ciy am ndax liggéey Serigne Touba moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am kon nag ñoo ngi soññ ñëpp te di woo ñëpp ñu ñëw jokk si liggéey bi di ñaanal suñu jëwriñ ji soxna ma Farimata Fall yàlla suñu borom yeesal yërmande ci moom yàlla xaare ko àjjanay firdawsi ci barkeb jaalibatul marahib kon jërë ngeen jëf